yotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw ci bépp matu-matu yoo am na booy piis ci rido ak moustiquaire ak booy diw ci yaram Val d'Afrique moo leen di may seen journal de la santé mbokk déglukat yi dale nag jàmm ca diwaanu Ndar association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose moo jagleel service de pédiatri bu centre hospitalier régional bu Ndar ab condensateur d'oxygène loole nag ñu wekk ko cap longo bu dox ci diggante REP Afrique ak boobile association lëngo boo xam ne li ko yëkkati moo di jàppale pajum feebaru drépanocytose njiital association bi di Maguette Ndiaye def ab plaidoyer nag ngir ñu jël matuwaay yépp ngir teel a faj li nga xam ne mooy feebaru drépanocytose ci xale yi Yves fexe ba ñi nga xam ne nii ñoo amee feebaru drépanocytose fii ci ndar jot ci paj bu mucc ayib ak it ñu leen di toppatoor ni mu waree daanaka loolee mébatu ñi nga xam ne nii ñoo ngànku ci mim réew kuréel bi ëmb ñi amee feebaru drépanocytose ñoom ñu jóge rek baaxee waa service pédiatrie bu hôpital bu ndar benn appareil bi ñuy duppee condensateur d'oxygène kii di Maguette Ndiaye moo jiite boobule kuréel mu yokk ci di xam ne ne suñu bëggee am ndam ci wàllum xeex feebaru drépanocytose bi lee faw ñu teel ci jóg ci paj mi. loolu tamit dafa bokk ci li ñuy xeexee feebar bi ndax buñ ci teelee jóg dina mën a tax ñu mën a dabu wala arrêté lépp luy nar a gàllankoor feebar bi te gis nañ ne ci xam-xam que feebar bu mel ni drépanocytose boo ci teelee jug rek mën nañ ci fàggu lu bari lu mel ni infection yi. muy ndimbal bi nga xamee nii kii di njiitu hôpital régional bu Ndar di docteur Thierno Seydou jaay moom rafetul na ko te muy ñaax ñu boole seen i kattan ngir xeex bi la feebar. loolu yëpp mu di lu am solo loo xam ne daal ci wetu état du Sénégal wetu ministre de la santé incha allah daañu mën a xeex bi te daa ñu fexe ba mu sotti incha allah parce que moom mooy bokk na ci stratégie yi nga xam a été au niveau du ministère dans le cadre de la politique Saint-Louis Yves association humanitaire internationale bi di TREP Afrique nag nee na li tax ñu taxawal ko moo di fexe ba drépanocytose doon loo xam ne dañu koy fàttaliku rek ndax bëgg nañ ko xeex mu nekk feebar bi nga xam ne moom la ñu duppee maladie génétique bu gën a law ci àdduna te ñu bëri nag xamuñu ko kàddu Robert U ci micro Yves Tendeng léegi rek la ñu jeexal session bu njëkk fii ci Dakar ci ab diplôme universitaire international ci feebaru drépanocytose dajale nañu lu war a toll ci fanweer ak juróom ci ay médecin ci diiru fukki fan ak juróom muy ay biologiste di pharmacien fexe nañu ba daal leen spécialisé ci wàllu drépanocytose li ni mel nag dinañ ko def ñetti yoon ci at bi Euh, li ñu tax a jóg mooy ci at yu ñu jëm ñu mën a am lu war a toll ci juróomi téeméer ci ay médecins yi nga xam ne dañuy faj wàllu drépanocytose ci Afrique. de former près de 500 médecins soignants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 Bonjour chers auditeurs, à Saint-Louis, l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose a doté le service de pédiatrie du centre hospitalier régional d'un condensateur d'oxygène. Cela entre dans le cadre de son partenariat avec DrepAfrique, une association humanitaire internationale. Le but est d'accompagner ce service dans la prise en charge très tôt de cette maladie. Le président de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose, Magueye plaide pour la création des moyens de prise en charge rapide. Les détails avec avec Yves Tendeng. Promouvoir une meilleure prise en charge et un suivi des drépanocytaires de Saint-Louis, c'est l'objectif visé par les responsables de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose qui viennent de mettre à la disposition du centre de pédiatrie de l'hôpital de Saint-Louis un condensateur d'oxygène. Maguène Ndiaye est le président de cette association. Il plaide pour une prise en charge très tôt de cette maladie de la drépanocytose afin de sauver plus tard des vies. Pour prendre en charge une maladie chronique comme la drépanocytose, il faut créer les, les, les moyens euh, de prise en charge rapide. Si une maladie comme la drépanocytose est prise en charge très tôt, cela vraiment pourra l'aider dans sa vie. Ça peut aider à se parer contre d'éventuelles infections Et nous avons compris, nous qui vivons avec la drépanocytose, que si les préoccupations cliniques liées à la maladie sont prises en charge très tôt, on peut facilement vivre avec la drépanocytose. Un don que magnifie le directeur du centre hospitalier régional de Saint-Louis, le docteur Tcherno Seydou Ndiaye, qui préconise une conjugaison des efforts pour combattre cette maladie. Je te remercie pour la lutte ardue, inlassable qui mène depuis des années euh, contre cette maladie. C'est une maladie souvent l'on vit dans l'ignorance, comme on l'a dit tout à l'heure, et que l'on vit aussi par ignorance. C'est ce vécu par ignorance-là, je crois que DREP Afrique a voulu combattre. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. L'association humanitaire internationale Trip Afrique faire sortir de l'oubli la drépanocytose qui, selon son président, est la maladie génétique la plus fréquente au monde, mais elle reste méconnue. L'association compte former 500 médecins et personnels soignants dans cette spécialité. Robert Hus réagit au micro de Yves Tendeng. Nous venons de terminer la première session à Dakar d'un diplôme universitaire, interuniversitaire, international pour la drépanocytose. Nous avons réuni pendant 15 jours dans une session 35 médecins, biologistes, pharmaciens, tous déjà donc diplômés, mais que nous avons spécialisés avec d'éminents professeurs africains et français euh, à un diplôme sur la drépanocytose. Et nous allons ça trois fois